tàggagoo. waaw sant rek. moom alayhi salaatu wa salaam. Euh, mais Pape Matar. Euh, Pape Matar Lo. yaa ngi seeti sa waa ji rasulullah. <laughs> man la ngay. waaw waaw maa maa ngi dem ziar yonent bi. dem umra ñëwaat. maa ngi nuyu gars yëpp nag sénégalais ah. avec président. <laughs> arriving at 9 p.m. local time and at 10, 10.45 public flight. After arriving at 9 p.m. local time and at 10, 10.45 public flight. waaw sant rek. boobu alayhi salaatu wa salaam. Euh, mais Pape Matar. Euh, Pape Matar Lo. yaa ngi seeti sa waaji <laughs> man da ngay. waaw maa ngi dem ziar yonent bi. ñëwaat. maa ngi nuyu gars yëpp nag sénégalais ah. <laughs> ci li maa ngi lay ñaanal fii ci barabu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaak sama yaay ji ngeen gudd fan ngeen wér sama mag yi génn àdduna yàlla na yàlla yërëm te xaar leen àjjana suma raq saa kees yàlla na ko yàlla yëkkati ci barkante bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan sama njaboot di ñaan sama papa di ñaan samay mag di ñaan samay rax samay jarbaat yàlla nañ gudd fan yàlla nañ wér yàlla nañ am teraanga àdduna ak àllaaxira ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam. waaw. waaw ah, maa ngi lay a waaye nag yàlla bu dogalee tey maag si fii. alhamdulilah. ah yaa ko waral. sant yàlla ñu ngi maa ngi lay ñaanal lépp loo fi bëgg. incha allah loo fi ñaan. yàlla na ko suñu borom def. amiin incha allah gudd fan ak waaye la res moom ñu ko bàyyi ci loxo yàlla. yàlla ngay wér jërëjëf jumaa yonent bi sallallahu alayhi nag ñaanal Sénégal yëpp incha ci Sénégal maa ngi fii ci barabu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàmm ak salaam di ñaanal président de la république jàmm kilifa diine yi ñu yàgg fi loolu te wér bi ñu yàgg fi ñi nga xamante ne kilifa diine kilifa aada maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ci barabu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii nga xamante ne nag fii la yonent bi tëdd maa ngi ñaanal ñëpp jàmm. barke Yonent bi sallallahu alayhi wa ko ñaanal Sénégal yëpp képp képp kuy mbër maa ngi lay ñaan képp kuy mbër maa ngi lay ñaan képp Baye Mandione maa ngi lay yaram di ko ñaanal ñëpp di la wax Baye Mandione yàlla nga am li nga bëgg si sa yaa xam loo bëgg yàlla suñu doon dafa ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Ndione jërëjëf jërëjëf ci Sénégal maa ngi fii ci barabu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di leen ñaanal jàmm ak salaam di ñaanal président de la république jàmm kilifa diine yi ñu yàgg fi loolu te wér bi ñu yàgg fi loolu te wér ñi nga xamante ne kilifa diine kilifa aada maa ngi ñaanal jàmm ci barabu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne nag fii la yonent maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal Sénégalais yëpp képp képp kuy mbër maa ngi lay ñaan képp kuy mbër maa ngi lay képp bàyyi ma njoon maa ngi lay ñaanal kattan ak wér gu yaram di ko ñaanal ñëpp di la wax Baye yàlla nga am li nga bëgg ci yaa xam loo bëgg yàlla suñu doon dafa ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Ndione jërëjëf jërëjëf waaw waaw ah, maa ngi baax a baax ñu waaye nag yàlla bu dogalee tey maag si fii alhamdulilah ah, yàlla kon maa ngi lay ñaanal lépp loo fi bëgg incha allah loo fi ñaan yàlla na ko suñu borom ak wér-gu-yaram rek la res moom ñu ko bàyyi ci loxo yàlla jërëjëf ñu ngi fi jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene def Abdoul Aziz Mohamed Silla Pape An Iliman Lam Alhaj Ba Mokhtar Lo Haj Masata Haj Cerno Alhaj Njogu Mbay Alhaj Fallu Mbakke